مفاتح البسر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على محمد jéggi sunu maam salaama bi bonjour aw aba kabarin kasa sawa diinu xaw mubtadal xabari faxul xaluxaay wa na nga def saala dahil xitali taxiyatan xat atat baada an soxari jamtan tuaddi salaamatan liman sabaxu sil jawikum fa xut li maa yesu mun sharifa jërëjëf mbokki téléspectateur yi nuy seetaan ci Aska TV ak Bichri TV di am mbégte ak kontaan bu baax a baax Euh, tey ñi ngi fii ci guddik yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddik yonent bi euh, ñi ngi fii ci pàkk bu sell bi di ba Njaañ am mbégte ak kontante baax di siyaare baax a baax euh, xalifa sëñ Mor Diagne xalifa Baye Ndiaga Diagne moom itam di ko siyaare bu baax a baax a baax mbooleem Njaañ gi yëpp di xalifa bi ñi ngi koy siyaare di ko ndokkeel bu baax di siyaare baax a baax sëriñ Amar Diagne xalifa Baye Mbaye Diagne euh, di siyaare bu baax a baax sëriñ Njaga Diagne bu Diagne euh, di képp koo xam ne yaa ngi ci euh, dëkk beeg li ko wër gannaaw nag tey nag boo xam ni spécial lay doon ci guddi gàmm gi spécial lay doon ci ak képp koo xam ne fi mu ngi ci dëkk beeg li ko wër waaye tamit képp koo xam ne yaa ngi ci àdduna beeg li ko wër nekk fii nga xam ne yaa ngi seetaan HK TV wala ngay seetaan Bichri wax dëgg yàlla mbégte lañ doon ndax collaboration bi tey jii lañ ko leerale tey ci pàkk bu sell bi waaye itam duma ci wetti jataay bi noonu lañ koy àndee di invité képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci fii ci euh, bis bu sell bi ci pàkk bi maa ngi jàkkaarloog sama xarit jàkkaarloog sama sëriñ di sëriñ Pape Samb moom itam di service commercial bu communication bu Matlaboul Fawzayni maa ngi jàkkaarloog moom moom laa fas yéene ànd ak tey fii ci Njaañ euh, ci plateau bu njëkk bi muy sunu première invitation tey ji laata loolu nag bala may nuyoo ko mbokki internet yi ma bàyyi ko mu nuyoo ñu dellusiwaat ci question yi sëñ bisimilahi rahmaani rahim yenn mbokki téléspectateurs yi nga xam ne si ni ñuy suivre ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ah, di nuyu tamit daa eh, defal sun eh, ñi nga xam ne si ñoo nekk fii ci télévision yi di jël spécialement gàmmu Njaañ tey ñoom tamit eh, ngi leen di nuyu leen daa jëfal ah, di baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne si def ni yéen koy def ci gàmmu gi di tëj foofu sama kàddu ci beneen jërëjëf sëñ Pape euh, yéen a ko dégg ci nuyoo bu sell bi nga xam ne moom la nuyoo mbokki téléspectateurs yi euh, sëñ Pape da nekk ki nga xam ne yow président service commercial bu communication bi tey jii euh, nga toog jàkkaarloo ko fii ci Njaañ ci liggéey bu sell bi nga xam ne moom ngeen coordonné moom ngeen def. maanaam waajal ko ba tey jii ci nga xam ne mooy gàmm 2020 euh, ngeen taxaw yéen communication Matlaboul Fawzeyni seen tolluwaay ci Njaañ seen tolluwaay tamit ci bisu guddi gàmm gi tey lan nga yëg ak lan ngay wax mbokk téléspectateurs yi ci wàllu organisation bi programmation bi ba ngeen si tey ci guddi gi tey. waaw ñu ngi am contentement am solo ci li nga xam ne si service communication bi jël nañ ko ci gàmm ndax euh, boo xoolee ci juróomi at yi ñu paase daayira bi dafa jublu maanaam di intervenir communication ndax gis nañ ne da amoon ay rëq-rëq yu am solo yoo xam si bëri na trop ñu ne nag léegi il ñu. jëm ci communication bi daal ñu jël ci ab liggéey bu am solo di ko ci def ba nga xam ne si nit ñi nga xam ne si peut-être nekkuñu ci dëkk bi te bokk ci daayira bi jéem a xam li nga xam ne si ñu ngi koy def looloo tax boo xoolee juróomi at yi ñu paase liggéey bu am solo def nañ ko ci wàllu loolu nag bu ngeen gisee ne gàmm gi. comme ni ma ko waxee rek communication dafa nekk lu nga xam ne si eh, daayira bi da ko accordé ab importance bu particulière ndax eh, boo xoolee ci jëf li nga xam ne si moom lañ njëkk a ci communication mooy nañ defar ay affiche ay affiche di ko def ci biir dëkk bi tasaare ko ci biir dëkk bi ba nga xam ne si ku ñëw ci biir dëkk bi wala ku fiy dugg da gis ne maanaam gàmm am na ci loolu premier objectif affiché yi tey boo demee ci booy dugg dëkk wala nga koy génn wala fii ci pénc mi di nga ci gis affiche yooyu loolu ci communication bi lañ def leneen li ci amaan ñuy gis ne gàmm gi mbaax mi dafay fees maanaam xajuñu ñu ne nan def benn extension mooy comme fii ñu toog nii wutal leen ay étranger ya li tey mooy nekk ci biir mbaar bi moom li ñu koy mën di dund fii loolu tamit liggéey am solo li nga xam ne si ñun ci communication bi def nañ ko tamit jël ay télé du ñàkk ne télévision yi nga xam ne si mooy yu ngan yi mag yi nga xam ne si moo nekk ci réew mi ay TFM wala ay lu matul sax ay télévision di leen kii mais ñoom tamit danañ leen di jël pour ko ñuy mën di couvrir gàmmu gi yooyu ci at yi ñu paas yëpp def ko waaye léegi nag soppate ko ci am mooy yéen ñii fi ñëw tey nekk ci réseaux sociaux yi te gis na ni réseaux sociaux yi daanaka sax moo gën a am importance ay ay télé léegi nit di nekk di seetaan di xool moo tax yéen ñi fi ñëw tey jàpp lañu ci gis nañ ne yombal ngeen ñu liggéey ba telle sorte que léegi gàmmu njaañ bi ci wàllu communication àgg na fu nga xam ne si tey àggu foon waaw àggu foon. Euh, waaw euh, wax nga ko léegi muy. commission communication bi euh, doxalin bi nga xam ne yéen a ngi koy dox ci dëkk bi ci wàllu affiche yi euh, gisaat ñu tamit ci wàllu exposition yi nga xam ne moom ngeen doon doxal an yi passé euh, ngeen wax naka ngeen di waxee li nga xam ne moom mooy jeunes yi nga xam ne ngi biir Njaañ ak tamit autorités yi wala leneen est-ce que yéen a ngi communiqué pour wan leen lan mooy lan mooy dëgg-dëgg doyooyu Njaañ lan mooy lan mooy cosaanu gàmmu Njaañ ak taxi tolluwaayu Njaañ est-ce que yéen ci ànd loolu ci man la bu foo seeni bi ngir wax leen Njaañ fi mu nekkoon ak mu bëgg a egg tey waaw loolu tamit euh, am na liggéey bu am solo bu nga xam ne si sun mbokki étudiants yi ñoo ngi leen di gërëm tamit euh, gis na ne ñoom tamit euh, bi mu duggee seen loxo bi ñu duggee ci gàmmu ga ba léegi gis nañ ne ci communication tamit am na fu ko yóbbu ndax booy xool exposition yi ñuy wax nii ci taarixu dëkk bi boo demee fee danga gis bu baax lu ci ëpp ci histoire dëkk bi def nañ ko ci ay exposition ku fi ñëw te nekk fi gan xamoo mbir dëkk bi peut-être histoire am boo demee ñoom dañ la expliquer ni dëkk bi cosaanu ak suñ tollu tey suñ muy étudiants yi nga xam ne si ñooy jógee Dakar yor loolu maanaam espécialement ñoom ñoo chargé wu loolu dañuy contribuer ci communication gàmm kon loolu ñu ngi ciy jaajëfal seen président ak seen taxawaay bi nga xam ne si def nañ ko fi baax a baax. moment bi moment bi lan ngeen manqué ci wàllu communication bi lan ngeen ci manqué ci loo xam ni yaa ngi ko war nga ko war nga koo jottaliwaat askan bi nga xam ni ngi lay seetaan euh, wala tamit loo xam ni war ngeen koo mën a organiser wu waat ngir gën koo waajalaat gannaaw gis ngeen ay yokkuteef gannaaw bi ngeen duggee si ci gàmm geeg léegi tolluwaay bi moment bii nii naka ngeen koy organiser waajtaay bi naka la woon maanaam ci ci wàllu réunion yi ci wàllu organisation bi tolluwaay bi équipe bi naka lañ naka lañ daj daanaka jafe-jafe am ci communication bi rek mooy peut-être que buñ jubee gàmm maanaam euh, daanaka avant gàmm gi daal laa gis na war nañu gën a yokkaat suñu communication bi avant gàmm gi maanaam lañ war di gën di yokkaat suñu communication pour que nit ñi xam ko waaye bisu gàmm gi ak ñi ci topp moom nit ñi daan xam bu baax waaye daal rëq-rëq yooyu daal moom lañ fi gisagun yi nga xam ne si yi nu ñuy gàmmooti ñu fexe ka euh, jéem ci gaaw sóobu xam ne bu ñu màggalee ba pare automatiquement war nañoo commencé di communiquer pour que nit ñi war di yëg war di xam war xam li xew ak li li nga xam si war nañ ko mën a def ci biir gàmm gi ñii ngi nag muy yéen ñi ngi fi ñëw tey comme ni ma leen ko waaw ñu leen di gërëm muy HK TV ak Bichri Art TV daaw moom tamit gis na ne jàpp na ci bu baax def ci ab liggéey bu am solo ren tamit mu ñëw di ko feddiliwaat ren waa HK TV ñëw jàpp ci gis nga kon ñu gis na ne gàmmu gi léegi amal amal na intérêt nit ñi amal na intérêt tamit ñi nga xam ne si ñoom ñooy télévision yi ñi nga xam ñun ñoo leen daan wuti léegi ñi ngi ñëw dindi wut si kon loolu ab jéego bu am solo la pour teg intérêt la ñun am nañ ci intérêt ñoom tamit am nañ ci intérêt kon daal gis nañ ne communication bi bu déwénee tamit gis na dana gën a yokk ci ci ci li ma yaakaar yeneen yeneen chaîne télévision ñëw fi couvrir na ko ba telle sorte que àdduna xam ne jaay ñi ngi gàmm ndax fii daan nañ gàmm. ci histoire gàmm tuuti rek mosal ñu ci histoire gàmm tuuti. Mhm. gàmm ko def bu yàgg a yàgg a yàgg mais nit ñi nit ñi woon a xam ne njaay ñi ngi gàmm. booy xool histoire bi sax daayir bi lu ko sos gàmmu gi moo ko tax a foofu la de ay gone ay ndaw ñëw nañ ñun kat gàmmu Njaañ ci taarixi gàmm yi gën a yàgg ci Sénégal ci la bokk pourquoi pas que ñun maanaam suñu gàmm ñu war te mën a fes daayir bi boo xoolee mu judd looloo ko tax a daayir bi mu doon dana gàmm ko tax a ñu jug ci di ci dox di ci wax. ak kilifa yi di ci waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fekkoon ñoom tamit ni yombalal ñu ko trop ñu yombal ñu ko trop ba charge yi nekk ci gàmmu geeg frais yeeg yëpp daayira bi di ko def ñoom ñu wàcc leen leen ñoom ñu nekk ci leneen ñun ñu yore organisation kon daayira bi dafa mel ne ab comité d'organisation la ci gàmmu donc daayira bi mu ko jëlee gis na ne léegi njaañ ñëpp ngi intéressé ci gàmmu léegi ku màggali Tuubaa danaan lee gàmmu Njaay ku ma ku màggali danaan lee gàmmu Njaay kon gis nga dëkk bi léegi boo duggee ci penk fees na del ak i nit kër yi boo demee it fees na del ak i gan ci lool lañ ci sàkk woon fexe dundal gàmmu gi ci biir dëkk bi nit ñi di dem ak a ñëw mbokk yeeg yëpp mën di ñëwaat di saaxoon ak seen i jërëjëf jërëjëf sëriñ Papa. Samb moom itam euh, gis ngeen ko muy service communication bi mat la Matlaboul Fawzeyni euh, gis nga ko nag ci wàccaayu njaañ gi ak gàmm gi la doon wax duma ko bàyyee liku euh, danaa koo xaarandi tuuti suñu jotaay bu mujj rek maak moom ci kàddu yu mujj yi waaye itam wéy leen di ànd ak Aska TV wéy leen di ànd ak Bichri euh, Art moom itam nekk tey ci spécial gàmmu Mawlud fii ci Njaañ moom la ñuy àndal yéen ànd ak yéen ba ko couverture suñu mbokk immigré yi nga xam ne yéen a nekk extérieur xam ngeen ni gàmmu Njaañ spécial lay doon tey moo tax tey ñu daal leen indil jotaay suñu jotaay bu njëkk nag Serigne Pape la woon moom nag gis ngeen ko ci communication bi euh, mu ngi noon nag Njaañ ak li ko wër ci kanam tuuti daan ànd ak mbooleem fédération boo xam ne daayira la boo xam ne ñu ngi dëkk bi ñu ànd ak ñoom ci ay jokkoo ci ay saadatu maraaxib wa kanaaxan ak soppi Sëñ Saaliw yi ak sopp nabi yi ñoom ñëpp nekk ci biir dëkk bi du ñàkk dañ ci ànd ak ñoom benn par benn waaye Baye Pape fi nga wax léegi mu ci wàllu communication bi door gis ngeen jànjee gi gan ñi ñëw nañu waaye tamit ba ngeen di door liggéey bi ci xilaafa gi ngeen ko dooree woon ba mu toll fii tey maanaam lan ngeen dese ci wàllu am nañ communication boo xam dañoo nekkal bitim réew wala dañ leen nekk ci biir dëkk bi wala benn ko moo nekk ci biir dëkk bi communication bu leen mën a indil tey couverture waaye nag communication moom ci biir dëkk bi la nekk. ci biir dëkk bi la dëkk bi la nekk. loolu tamit mooy comme ni ma wax rek dafa xam naa ne bu ci yàq ne buñ jublu buñ génnaat ci édition bi pa bi bii ñu nekk ni dañ ci jéem a joxaat ay waxtaan. de telle sorte ñi nga xam ne si à l'extérieur war ñu fa am ay antenne ay antenne ñoo xam ne si tey ñoo ñuy di si suñuy kàddu ci ci ci ci dëkk yooyu yi nga xam ne si à l'extérieur ndax diaspora bi. booy xool quatre vingt pour cent ci ci daayira bi ñi koy apporté ñoom ci ñoom la quatre vingt pour cent kon ñooñu ñu am solo lan ci biir daayira bi kon ñooñu tamit jaadu na euh, à l'extérieur peut-être ñu wut fa lu nga xam ne si daal ci wàllu communication ñooñu fay nekkal di jot li suñ kàddu foofu. jërëjëf mu ngi noonu Baye Pape Euh, gannaaw communi euh, communication bi nga xam ni moom la ñu nekk tey commission bi benn rek la ci biir dëkk bi xam naa du ñàkk seen programme ren bi ngeen boole ci euh, équipe yooyu waaye du ci ñàkk mu ngi noonu nag Aska TV ak Bichri moom la ñu àndal tey waajtaay bi ak tolluwaay bi tey ci gàmm gi lan ngay tàggoog mbokki téléspectateurs yi nga xam ñu ngi lay seetaan. waaw di am mbégte rek comme ni ma ko waxoon ci début bi ci gàmm gi ren gi ndax léegi maa ngi ci doon waxtaan ak sëñ bi sax muy sëñ Mor mu naan waa man gàmm ngi gis nga ren ni mu neexee ma ne ko ah at jot day gën di neex ndax booy xool gàmm gi nin ko daan organiser bu njëkk ay jafe-jafe yu yu moom la ñu daan indi kenn daawut am jot maanaam man mii daaw mu am jot sëñ bi daawut am man commission bu ci nekk daawut am jot tellement charge dafa bëri léegi nag roode nan da roode nan ba telle sorte que léegi mbir mi ku nekk mën naa toog sax muy dox mu amee jot toog fii lu mat une heure kenn woowu ma sëñ ba toog te kër ga kenn woowu léegi loolu mbir mi roode na maanaam ñi ngi ci léegi ci yoon wi di dox kon loolu maanaam ak ak lu ñuy sant la. kon équipe de transport yi ñoom ñoo bari ci ci moment bi ci gàmm gi. <laughs> léegi kon loolu ak sa ak cant la. Mhm. xam ne léegi nit ki ku nekk xam na li muy liggéey te maanaam du ci problème amut. Mhm. problème yi ci daan am yëpp daanaka lu ci bëri saafara kon loolu mbégte la ñu ngi koy sant nag ñëpp ñu ci jàpp képp ko ci jàpp pour que gàmm bi réussir maam ñi ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax di santaat yi ñii tamit yéen télévision yi ngeen ñëw fii tey bàyyi seen liggéey ñëw di jàppale. te ñun dañ daan jël ay frais yu am solo di ko ci consacré tey ñu gis ñeneen ñu ñëw ñii ñii ngeen ci jàpp. kon yéen tamit euh, waa Bichri Art TV ak waa HK TV ñoo ngi leen di sant bu baax gis na ne jàpp ngeen ci communication bi ci turu daayira bi xamal ne daal am ngeen suñu gërëm ñoo ngi leen ci sant di leen gërëm ci lii ngeen def di ñeen yàlla yokku leen ba li ngeen bëgg ngeen am ay télévision ëllëg yu nga xam ne si tey day toog nekk ci Sénégal nit ñi di ko suivre bu baax a baax. jërëjëf Baye Pape Samb moom itam am na solo euh, ci kaddu gi leeral gi euh, Bichri RTV moom ndeysaan moom la ñu àndaloon euh, ci caméra bi moom tamit ndeysaan ci jokko gi ak HKTV euh, lii lañu ñu indiloon Baye Pape Samb bokk ci service commercial euh, bu communication bi li mu leeral am na solo kon mi ngi noonu noonu la ñuy ànd ak yéen rek incha allahu TV ànd leen ak ki nga xam ne moom mooy Bichri RTV ak HKTV nes tuut ñu ànd ak beneen jataay suñu deuxième jataay nes tuut ñu ànd ak ñu bàyyi leen ak suñu caméraman réalisateur yi ñu demal ñu tuuti élément ñëwaat.